asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki Touba ci kanam ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziare bu baax a baax euh, di jiital ci nuyoo bi Serigne muntaxal Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér euh, di ci teg Serigne Abib Mbacke di kilifa ak ci kanam ak magam di Alhaji sëriñ Tako di ambassadeur Touba ci kanam ak jëwriñ ji di sëriñ Abdoulahat Abibou ak président Abdou Fatah Guèye ñu doon ñëw pour andil leen ay leeral. muy bilan financier bu mois de mai euh, commission des finances sous commission gestion des fonds ñooy def leeral yi bilan bi nag euh, mi ngi nekk liy dugg ci kees Touba ci kanam ak liy génn dañ koy tàmbalee ci liy dugg ci kees gi liy dugg ci kees gi Touba lañ koy tàmbalee Touba ci mois de mai dugal nañ vingt six million neuf cent onze mille

Dakar ci njiitalu Baye Serigne Bousso ak Serigne El Hadj Ndaw dugal nañ 3 millions 772 mille 200 marché Sandaga ci njiitalu Serigne Afe Ñang dugal nañ 500 mille bu dee tib ci njiitalu Soxna Khady Dieng dugal nañ 125 mille Yarawaay ci njiitalu Yaa Fatma Dieng dugal nañ 150 mille bu dee Jurbel ci njiitalu Soxna Ndey Ndiaye ak sëriñ Fallou Lay dugal nañ 400000 Kédougou ci njiitul Serigne Modou Lo dugal nañ cent 337000 Thiès ci njiitul Serigne mbay Sall dugal nañ 821000 Ngaay ci njiitul Soxna Maguette Jiite dugal nañ 100000 Louga ci njiitul Serigne Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ 1 million 83 mille 500 Kaolack ci njiitalu Serigne Babacar Mbacke mu Kabaro ak Serigne Moustapha Touré dugal nañ 650 000 Saint-Louis ci njiitalu Serigne Rijal Seck ak Soxna Rama dugal nañ 721 000 Kébémer ci njiitalu Serigne Gora Sylla dugal nañ 620 000 Mbour ci njiitalu Serigne Mor Souran dugal nañ 600 000 Joal ci njiitalu Serigne Bassirou Thiaw dugal nañ 432000 Goudiri ci njiitul Serigne Dame Ba dugal nañ 383500 Kolda ci njiitul Serigne Moussa Sène dugal nañ 173000 Thiey Thiey ci njiitul Soxna Faati Jabaay dugal nañ 100000 Casamance ci njiitul Serigne Mamadou Khary Guèye dugal nañ 316000 Jifeer ci njiitul Serigne Ousmane Ndiaye dugal nañ 100000 Ross Béthio ci njiitul Serigne Alioune Ñing dugal nañ 200000. Touba Belel ci njiitul Soxna Sooda jóg dugal nañ 50000. Vélingara ci njiitul Serigne Mbacke Gueye dugal nañ 50000. maatam ci njiitul Serigne Ndiaga Diouf ji dugal nañ 28050. Kafountine ci njiitul Serigne Njëmb Cissé dugal nañ 200000. Bokki Jewe ci njiitul Serigne Talla dugal nañ 73000. Daaru Muxti dugal nañ vingt 20000. Mudéeri ci njiitul Serigne Bassirou Ndiaye dugal nañ cinquante mille Ngooy ci njiitul Serigne Assane Yadd dugal nañ cent quatre-vingt-trois mille extourne bancaire mooy fere yi banque bi di dagg ci compte Touba ci kanam te di ko delloosiwaat banque Atlantique dugal na six mille trois cent cinquante-six versement anonyme Euh, mooy versement yi nga xamante ni day dugg ci compte yi te du ñu xam ñi ko dugal toll na ci 2 millions 867 mille 680 Carrefour Diaroume ci njiitul Serigne Modou Makhtar Mbaye dugal nañ 50 mille am na jaayante bu ñëwoon ci compte Touba ci kanam mu toll ci 150 mille famille Ndioufène ñoo ko indi am na beneen jaayante bu ñëwaat ci compte Touba kanam mu toll ci 500 mille euh, waaju liggéey gi ñoo ko indi woon loolu mooy li dugg ci compte Touba kanam yi ci Sénégal mooy zone nationale zone nationale bi buñ ko calculer lépp mu ngi toll ci 96 millions 846 mille 09 francs euh, éclairage publique mooy euh, làmp yi dem ci buntu kër yi te Touba ci kanam fàggu woon ko pour muy jàppandi ci askan wi am na versement 920 mille ñu ñëw ci continent yi dañ koy jiital dañ ciy jiital continent Amérique euh, zone Amérique Euh, Canada moo ci jiitu ci njiitalu Serigne Pape Amar versé nañ 1 million 210 mille bu dee ci États-Unis d'Amérique ci njiitalu Serigne yi bu Seck versé nañ 8 millions 14 mille bu ñu boolee totalu continent Amérique muy zone Amérique versé nañ 9 millions 224 mille ñu ñëw ci zone Europe Angleterre lañ ciy jiital ci njiitalu Serigne Fallou Diop versé nañ 1 million 130 mille 500 Euh, bu dee ca Espagne euh, ci mois de mai bi versé nañ 426 422 francs waaye ñu leeral foofu ne versement Espagne bu mois d' avril tolloon na ci 571 463 waaye dañ koo dugaloon ci euh, versement anonyme yi ndax xamuñu woon turu ki ko dugal waaye versement bi agsi na ci compte yi ci kanam bu dee Italie ci njiitalu coordination Italie verse nañ 5 632 734 francs am na jaayante bu jógee woon France toll ci quatre cinquante deux mille neuf cent soixante sept ci euh, Kër Sëñ Touba diaspora am beneen jaayante bu jógee woon ci euh, soxna suñuy wax soxna Jaara Faal nga xam ne ab nasaraan la waaye bi mu déggee ndigal li euh, daa ñëw tàbbisi ci liggéey bi mu toll ci cent mille francs ak bay Daam Faal mu toll ci cinquante mille suñu boolee jaayante boobu jógee ci France mi ngi toll ci 602 967 francs bu dee France ci coordination France bi verse nañ 1 million 34 mille 102 francs bu dee Suisse ci njiitul Serigne Ndiaga Aw versé nañ 250 mille bu dee Allemagne ci njiitul Serigne Abdou Salam Faye versé nañ 641 mille 677 francs suñu boolee li jógee Europe totalu versement Europe zone Europe toll na ci million 9 millions 718 mille 402 francs ñu ñëw ci zone Afrique am na mbokkum taalibe mu jaayante woon ca Togo dugal ci compte Touba ci kanam 1 million waaye bëggul ko wax turam ñuy ñaan yàlla euh, Serigne Touba nangul ko liggéeyam Gabon ci njiitul Serigne Pape Ciss versé nañ 250 275 mille bu dee Mauritanie ci njiitalu Serigne Ibrahima Sarr versé nañ 1 million 250 mille suñu boolee totalu zone Afrique muy continent Afrique li fi jóge mi ngi toll ci 2 millions 525 mille suñu boolee lépp nag muy euh, li jóge Sénégal muy zone nationale bi li jóge zone Amérique zone Europe ak zone Afrique ci mois de mai versement bi mi ngi toll ci 1 119 millions mille cent 233 411 francs 119 millions cent 411 francs loolu mooy li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de mai ñu ñëw ci li fi génn li génn ci compte Touba ci kanam li ci ëpp ci chantier yi la jëm chantier yi li ci ëpp mooy barabu fajukaay yi ñuy liggéey dañ koy tàmbalee ci barabu fajukaay bi nekk Daarul Xadim ci mois de mai bi génn nañ ci 10 millions 28 mille cent 10 millions vingt-huit mille huit cent quarante-huit euh, bu dee ci daara yi daara yi Touba ci kanam di defar mu toll ci limub juróom-ñaar fukki daara euh, ci mois de mai bi génn nañ ci sept million quatre cent soixante-cinq mille huit cent euh, ñëpp xam nañ ne barabu fajukaay bu tuubaa Njaareem bi tàmbali na tàmbali nañ liggéey bi ci mois de mai bi génn nañ ci six millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent trente-six francs barabu fajukaay ba nekk ca ndaam tamit liggéey bi tàmbali na ci mois de mais bi génne nañ ci 2 millions 134 mille cent bu dee ci chantier université ba mooy bâtiment bi Touba ci kanam di liggéey ci université bi génne nañ ci mois de mai 2 millions 136 mille 250 am na ay matériel yu ñu jëndaloon barabu fajukaay ba nekk ca yaañ ka mu toll ci 767 mille barabu fajukaay ba nekk ca kër gol dugal nañ ci huit cent quarante cinq mille bu dee ba nekk ca Boberel dugal nañ ci cinq cent quatre vingt seize mille commission communication xam nañ ne ci weer yi ñu génn liñ dugal ci communication bi bari na muy contrat partenariat yi ñu am ak euh, rajo yi am ci yoo xamante ni at la ak ci yenn télé yi bu mel ne télé Futur Média muy TFM ak euh, Sen TV ak euh, Walfajri liñ ci génn mi ngi toll ci 7 millions 725 mille 800 bu dee commission environnement ñiy saytu wàllu garab yeeg yu ni mel ak pépinière bu Touba ci kanam liñ ci génn ci mois de mai toll na ci 704 787 mille 050 francs paiement salaire yi muy salaire ñiy liggéey ci Touba ci kanam bureau Dakar ak tuuba ak location bi génn nañ ci un million cent soixante mille am na dix million yu ñu génne woon jox ko commission sociale bi ñuy def euh, social ramadan bi nga xam ne at mu jot ñu def ko waaye ren ñu xool fii tolluwaayu jamono ji toll Touba Ca Kanam génn dix million jox ko commission sociale pour mu yokk ko ci li mu yóbbu ci askan wi génne woon nañ euh, vingt millions dugal ko ci. Euh, famille yi nga xamante ni dañ leen a quarantaine te mun Mountakha joxoon ci ndigal Touba ci kanam pour mu taxawu leen génneel nañ ko benn budget wu 20 millions ci mois de mais bi. ci nag ci loolu tamit génnewaat nañ beneen 20 millions boo xamante ni dañ koo jébbal commission sociale pour ñu taxawu ci ñi nga xamante ni ay néew ji doole lañ te jamono xaw a am nu mu demee rawatina ci mbas mi. commission logistique. nga xamante ni mooy toppatoo lépp luy matériel Touba ci kanam euh, moo xam oto yi la ak euh, yeneen bagage tubaa ci kanam yëpp génne nañ 2 millions 833 mille 658 ci mois de mai bi muy fayu chauffeur yi ak travaux yi ñu doon defar ci yenn dépôt yi ak carburant bi dem ci oto Touba ci kanam yi am na bureau bu ñu jël ca Louga def nañ ci deux cent neuf mille cinq cent ci mois de mai am na cent cinquante mille yu ñu génne woon euh, ci ay tirage yu ñu doon defar euh, mu nekk matériel yu jëm ci chantier tubaat ci kanam yépp am na vingt sept mille francs yu ñu génne tamit loolu ay frais Orange Money la ca bureau Dakar ba nga xamante ni ñu ëpp ñuy def seen ay versement ci Orange Money lañ ko doon jaarale frais yi mi ngi toll ci vingt sept mille francs am na mille yu ñu génne di ko fi teg pour yenn yi jàmp ci Touba ci kanam rawatina weekend yeeg yooyu nga xam ne banque yi duñ ubbi. am na 27000 francs 27334 francs yu génn loolu frais banque bancaire yi la banque yi li ñu dagg ci compte Touba ci kanam loolu mooy li génn ci keesu Touba ci kanam ci mois de mai suñu ko boolee mi ngi toll ci 94 millions 171 mille 076 francs bu ñu ci li dugg ci kees gi ci mois de mais tolloon cent dix neuf tolloon ak cent dix neuf millions deux cent trente mille quatre cent onze francs kon recette mois de mais day nekk vingt cinq millions soixante deux mille trois cent trente cinq loolu su fekk see solde bi desoon ci fin mois d' avril tolloon ci six cent quatre cent quarante quatre mille sept cent trente six francs day nekk sept cent six millions. mille 207 071 francs kon mën nañoo jàpp euh, le deux mille vingt li nekk ci compte Touba ci kanam yi mi ngi toll ci 706 millions 207 mille 071 francs ñuy sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu te di sant mbooleem collecteur bu Touba ci kanam ak collectrice bu Touba ci kanam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi yëpp waaye di sant mbooleem commission des finance bi saytu lii ak euh, sous commission gestion des fonds bi di sant euh, Touba Info di sant euh, waa bureau bi yëpp jërë ngeen def